jaajëf mbokk yi ñuy teewlu fi ngeen metti nekk ci àdduna bi wërngal képp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu ñu ngi ci capitalu faydatu tijaaniya di Medina Baye kër Serigne Darou Omar Lo am na xibaar bu ma bëgg a yeggee mbokki jullit yi mbokki taalibe yi jëm ci xew-xew diine bu mag bi nga xam ne mu ngi ko dëkkmal ñu teewlu ki nga xam ne moo di oustaz alxaaji Thiam kenn ci taalibe yi laata ñuy teewlu sëriñ bi di Serigne Darou Omar Lo aouzu billahi min acheytaani rajim <coughs> bismillahi rahmaani والصلاة والسلام على رسول الله بوكي جولي بوكي طالبي بوكي صوبي قردي دكنوري نيغي نيو نيب سي الاسلام دو السلام عليكم ورحمه الله سي ندغل سيري سين سيرين سين دار عمر لو موي او مبوك جولي نيب دي لين فاتالي بس بو خامني كين فاتوت كو di leen oo si guddig yonent bi sallallahu alayhi di oo képp koo xam ne yaa ngi xëyoo ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad mu lay oo si bés boobu muy gàmmu kanta ñu jàpp ko ren le 17 février sëriñ bi nee na mu ngi oo mbokk julli ñëpp di oo soppi yëpp di oo taalibe di oo xarit di oo dëkkandoor yëpp si guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wa ñu teewee ko pour màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak seen sëriñ Cheikh Bembe ak Cheikh Ibrahima Wade ak mboolee mi muqaddam yi nga xam ne ñu ngi ànd ak euh, Seydi wa Mawlaay seen Daara ak mboolee mi taalibe yi nga xam ne jaar nañ fii si daara ji ak mbollem soppe yi ak dëkkandoor yépp ñu serigne bi neena mu leen fatali bis boobu di leen ci o pour ñu teewee ko pour màggal yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam bis nak du lañ ko dogo def adi yep ñu koy def waaye serigne bi ren dafa bëgg bis boobu ñu gën koy organiser mu gëna depp ak jamono motax li ñu ah, li ñu def nii yëpp pour ñu ñu def ko pour pour waajal bés boobu kon nag sëriñ bi nee na muy oo fu jullit nekk rek mu lay oo si bés boobu dinañ ko fàttali xànd ak xam ne ne kenn fàttewut ko ñu ngi ñaan yàlla yóbbu ñu si jàmm ñu teewee ko yàlla nangu jëf yëpp te gërëm ko si daraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ma zalik xalala bi xaq qadri wa miqdaar azim alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما صبر الناس عقب الآخر ولا هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدم من قدرهم السلام عليكم بك جلدي كان سنت على جلد سيدنا صلى الله عليه وسلم نيغي نيو مبالم جلدي بك طالبي غور جيجن داو اك ماك كين كو نيك سي تورم اك جيمم دي سنت على سي جوتاي بيغا خامني فاس نانكو هنا muy gàmm gi nga xam ne baaxoo on nañ di ko def kantaaxaat mu jot ci ndigal xalifa bi cheikh mohamad maayi ibrahim ak ndigal imam cheikh ahmad tidiane ali cissé waa ci jiital cheikh mohamadou maayi cissé ñu ngi koy def ci seen ndigal waaye ñu ànd jeg suñu mag suñu sëriñ cheikh ibrahima wadd suñ sëriñ sa Baye Mbaye Cissé ñooñu ñëpp ñu ànd ci moom di ko def ci seen ndigal lépp ñu jëmee ko ci barkeb sëriñ Ali Cissé ci barke Baye. liñu ñu sant yàlla mooy bés bi yàgg nañ koo teewee yàgg nañ koo def at mu jot muy gën de dëppoog yoon at mu jot. mu gën di tasaaroo at mu jot nag dañu bugg rek muy gën di yokk ci mbooloo ak ci xam ak ci organisme bu jag bu rafet noonu lañ ko bëggee at mu jot bii di ñëw ni nga xam ne jàpp nañ ko juróom-ñaari fan ci baralu yi tolloog 17 février ci lañ ko fas yéene defee niñ ko daan defee mooy huit dañ xëy da jàng alquran ba une heure ñu wàcc julli tisbaar xewlu toog ba cinq ñu lal jotaay bi tatagal gan ñi présenté leen amal fa ay discours amal fa ay waxtaan niñ ko daan defee Baye Mbaye Cissé jël fa mbokk yi xoon xibaar baa ngi doon di gàmmu Kantaku vingt 2024 ñu jàpp ko samedi 17 février ma fàttali ne Kanta mu ngi nekk ci commune bu Kayen arrondissement Bamba Thialène département bu Koupentoum ci région bu Tamba ñu koy wax Sénégal oriental gàmmu gi ñu jàpp ko samedi mille vingt 2024 ñoo ngi ci woo ñëpp.